marché financier ba day yëngu xam nga ne benn marché boo xam ni kon soixante onze milliards la la ilaha illallah diggante ministère de la santé gi la ak entreprise ACD waaw waaw dama la surfacturation ba rek vingt milliards la laa wax marché boo xam ne yaa ma neex yaa gi rek la ministre finance gi la woo dikkal yéene kaa ne waaye Abdoulaye Sylla mi lee lay daw bay daanu en tout cas daal nekkoon kon candidat ci élection présidentielle ya Le kaay ne de travaux waaw la ca nekk doy na waar dama ne la war ba daal boo ko xaymaa ci biir réew mi rek toll na ci ñetti téeméer ci ay milliards trois cent milliards de intérieur waaw waaw laa waaye yow ndox mi nga xam ne maanaam kon daa fàq ne kon jóge ca dex ga daal di dugg ca biir kër ya fleuve Sénégal gi lée gars yi yàgg na ñoo yëglu de yàgg na ñoo yëglu de waaw taxaw écologiste yi day ñoom daal li ñuy réclamer leen la mooy politique de prévention état ba na ca jóg docteur Bakary waaw nee gis nga depuis ñu tabaxee kon barrage su mënantali gi lee yëkkati ca kaw ah ndox mi ne day mosuñu koo ngëp ca jamono joojee Le Quotidien yéene kaay nee na ay waay débat ba Sonko ak Amadou Ba waaw nee nañu pare nañu ngir wax dee débat sans préalable téeméer la bind dee L'Observateur day la mu bind waaw mooy Sonko ak Diomaye mi kan mooy kan mooy kan le jeu de rôle lu ni mel day la wax déedéet violence gi ci réew mi lée mosu daal la ngay fax laa la wax opération mbëkk mi migratoire gars yi day fi ay mala laa la wax maar taal dañuy transhumé Alioune Sarr wutali na Samb wutali na Pastef Déthié Fall wutali na Pastef Fally Seck Tamsir Gueye wutali na Pastef Thierno Diagne wutali Samba Ndiaye wutali na Pastef yéene gi ne dama ne la ay maire ñoo xam ne dañ leen a fal ay homme d'affaires ñoom ñëpp daal fi mu nekk nii lée nga xam ne ci jamonoy Macky Sall day lu ne lu ne lu ne nekk nañ ko lu ne am nañ ko ña a fàq ne kon wutali kon Sonko jomaay jomaay te mooy Sonko enquête yéene kaay ne demu Samba Ndiaye bi lée weex na aha waaw waaw dama ne demu Samba Ndiaye ba kon weex na leesi ko yéene kaay ne Samba Ndiaye day waa Pastef kon dañ koo déclaré persona non grata aha waaw waaw parce am na ci ay punkalu Pastef yoo xam ne day nee nañu Samba Ndiaye bi lée doy na sëkk Guy Marius Sagna Samba Ndiaye doy Ndiaye doy na sëkk Abbas Samba Ndiaye doy na sëkk Dayru Top Samba Ndiaye doy na sëkk waa Pastef Samba Ndiaye doy na sëkk waaw waaw les écoles yéene kaa ne professeur Alassane Diédhiou waaw nee na Ka doy na sëkk dama ne la moom mooy recteur bu université Assane Seck Ziguinchor nekk tam responsable départemental bu Pastef moom professeur Alassane Diédhiou mi lee nee na kii di Doudou Ka doy na sëkk ndaxte nag bloqué bi nga xam ne kon blocus nañ ko woon kër Ousmane justice ci boppam kon ne def nag liggéeyam ci doomu aadama yi nga xam ni kon dañoo dee parce nag waa Casamance gi li ñu deelee bëri na ay waay Samba Ndiaye doy na sëkk vox populi ne pression bi nga xam ni kon moom la ñu lal ci kaw joomaay mi lée ngir mu dàq Samba Ndiaye doy na sëkk ndaxte waa Pastef day nee nañ Samba Ndiaye doy na sëkk dama ne la waa Pastef a ngi mer genn xeetu mer xam ne ci fal gi nga xam ni kon joomaay fal na ko ki fi nekkoon kon barki doy na sëkk ay waay mbaa duñ jooy Samba Ndiaye doy na bul ñëw soxla ñu la ay waay jile waaw waaw yéen a kaa gi ne pétition ba day laal na vingt trois mille signature laa la wax laataa deux heures du matin nee nañu Samba Ndiaye mi lee doy na sëkk Waly Diouf Bodian nee na Samba Ndiaye doy na sëkk Abbas Sall nee na Samba Ndiaye doy na sëkk Guy Marius Sagna nee na Samba Ndiaye doy na sëkk Pastef Grand Dakar nee nañu Samba Ndiaye na sëkk ay lii mbaa jàmm la le public yéen a ne waa kon daal léegi daal militant Pastef yi lée ñoom ñooy gouverner waaw waaw parce que nag fu ñu bañee Samba Ndiaye mi lee dem nangu fa Mimi Touré bokkul aha waaw waaw Dakar Presse ne signature nag président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi lee la ñuy xool lan lay jar l'affaire di yéene kaa ne dama ne pourquoi accepter Mimi Touré ca au représentant du chef de l'État ba noppi nag bëgg koo bañal kii di Samba Ndiaye ca nomination bokkul direct news ne yeneeni maire a ngi ni lee da ngay fax de Faly Seck mi lee ak Pape Songa Diouf waaw wuyu nañu wooteewu Mimi Touré ba ko ak li xew ne ci mbirum Samba Ndiaye évidence yéene ay ko wax raté nañ ko maar day taali dama ba ñu jaar ci palanteer bi laa la wax ay waay gile ay waay gile lii quotidien ne ay jege ñaale Samba Ndiaye fayu nañu parce que nee Samba Ndiaye mi ñii nga xam ne ñoom ñoo koy xas tey tànkama leen gën aha Moustapha moo ko wax ci Samba Ndiaye la bokk nee na gis nga Sonko Jomaay Jomaay mooy Sonko mi nar nañoo teel a daanu te seeni militant ñoo leen di daaneel ñoo leen faloon libération yi ne dama ne la du Samba Ndiaye kese de déedéet Samba Ndiaye mii xanaa xamal ne Cour des comptes da koo épinglé woon ak kii di Madeleine Suzanne Lo moom it dañ koo nommé DAF ca ministère industrie ak commerce Serigne Gueye Diop a def lu ni mel waaw Ameth Ndoye chroniqueur day gendarmerie teg na ko loxo ndax dawal te yorul permis libération yéene ay waay coowal kii di jëy na ma Ndiaye waaw borom këram day ak ña ko doon jàppale kon ca jëf ji ñaaw ja mujj leen a teg loxo le Dakar waaye yéene kaay ne Samba Ndiaye waa koo watu nee nañ ko la le témoin Samba waaye de provoqué na ab malaise ca biir laa la wax critique yéene kaay ne recomposition classe politique bi lée na ñoo xam ne day ñi ngi seen timis seen carrière day jeex na dak source aané diggante Amadou Ba mi lée ak Ousmane Sonko mbir mi nar naa tàng lool la tàng kay mooy Pastef ña taal Diomaye ak Sonko laa la wax xale day fi mu nekk nii di taal yi songu nañ gaay nee nañ leen Samba Ndiaye dina fi jóge ci nii wala ci ne le yoor yoor yéene kaay ne Bilal Diatta président Ousmane Sonko mi de sama kaw ngay jaar waa gëm sa bopp day nee nañu ñi dinañ jaar seen kaw ubbil tribune yéene kaay nañu gars yi de xam nga fan la ñuy mujjee ca groupe de travail Nations Unies waa rado daal nee nañ da mi ànd ak daal nee nañu buggaan ngay dani mi lée nañ ko génnee ci kaso bi réew mi quotidien ne Amadou Ba day daal dinay nangu les formateurs yéene kaay ne jigéenu taxawuy day ak wàllu dem nañ au front de nee nañ majorité rek la défense yéene kaay ne laaj wi kay mooy na ci signature am ba ndax kon kii di Samba Ndiaye révélation yéene kaay tout a Samba Ndiaye daal waa Pastef bëgguñ ko bëgguñ ko tey te bëgguñ ko ëllëg dem naa ca football ba Sénégal tey fekki waat na nag Mauritanie kon final bit su kër ba la waaw terminé sor ne buy mooy dixième final record ci Sénégal dem naa ca lamb ja 2022 2023 waaw mbër yi gën a xarañ waaw bëre dóor Zarko fekki ne booy ñaar deux ak Tafatine waaw waaw <laughs> ndax lu neex waaye nag làmb ji daal ak lu mu neex neex neex neex neex neex neex bu waxulaa ndax Sonko Diomaye te Diomaye mooy Sonko boo paree ma ne la alaaji tëjal